man na sama wax moom du si bari ndax fee laa commencé maanaam fii nii même sax duñ lay yor oto sax war a jàll fii duñu am fu ñuy jàll dañuy baare seen pousse-pousse yi affaire yooyu quoi yenn saa yi da dafiy jaar seen pono yu bët. dellu si dëggantaan yaa ngi dégg affaire bi daal nu mu demee mooy tey suba ñëw bañ fi indee affaire bi sama grand bee ne na leen seen patron bi buñ ko fi taal lii buñ ko fi ubbi quoi. ndax wóoru quoi ñun daal dañoo sëgg di liggéey léegi nii rek ñoo dégg affaire bi explosé fii ñëpp daw ñii jaar nii ñii def nii. lan la lan la lii dégg air la. yaa ngi dégg gars yi ubbi ko te dafa am gaz affaire yooyu quoi yaa ngi dégg te ñu si blessé dem hôpital urgence dafa bari yaa ngi dégg biteelu air la dafa ànd ak gaz affaire yooyu quoi yaa ngi dégg ubbi guñ ko ubbi booy bi da ko dajji beneen lu doon ko dajji ba affaire yu explosé yaa ngi dégg ñu si blessé na bari na gars yaa ngi urgence yaa ngi dégg mën na onze personnes ñu si dem moom bari na yaa ngi dégg man nag loolu dong laa moom si lu ma di wax affaire bi dafa mel ni dafa am xet bu garaaw xet bu si nekk kay moom man instant mënu liggéey sax oto bi may léegi gisoo boobu li damay dem bay dugg si biir oto bi génnaat fataal samay bakkan génnaat ñun nag duñ bëgg nañu ko ñu dimbali affaire bi jug fi quoi maa ngi dégg baaxu si yaram waaw seen dënn bi lay jàpp baaxu si yaa ngi dégg man instant bi wóor na Roussa man mi di wax sama dënd bi nii lay def day tëf tëf barki alxuraan karim yaa ngi dégg billaay walaay sama bët yëpp ay jooy oto bi may sëgg ni damay dem bay sëgg bëgg a liggéey damay génnaat oto bi gars yi ko defoon nii ñoom daw nañu ba dem seen yoon seen bagage yaa ngi fi lañ ko bàyyi dem nañu gisuñu leen fu mujj moom ñoom ñappa daw kenn am na suñu doon wàcc si ñoom sax am nañu si doon wàcc ñu si doon wàcc si ñoom euh, bari na da na wàcc ñëpp instant bi seey parce que ñi mu dal nee boo yee nekk hôpital nee ba léegi parce que am ñëpp ma ma ñëw gestu sama atelier sama atelier laa ñëw ma sama atelier fële ci daw fa booy yëg ñëpp daw fu ne waay jóg. man may génn daaw bu ndax lépp man man damaa daanu moom dëgg yàlla damaa daanu xamatoo Aliou sax benn booy mu may indi sama téléphone ma defee tëdd gars yi moom xamatoo lan la mais affaire bi moom xam naa ne posan la moom moom la leer ba leer xamu nu mu def ba indi ko fi mais war nañoo dimbali ngir yàlla ak yéen tamit ñu ay borom kër lañu xam nga dañuy ñëw fi di ñaxe pour yóbbu suñu kër mais ñun vraiment sonn nañu sonn nañu ak ñii léegi nag li ñu bëgg mooy bu ñu ci mën ngeen jàppaleen ci te yàlla rek tax ñu yéen leen yaakaar yi moom actuellement ni am na ñoo xam ne dem nañ léegi rapidement ñoom tàng booy newoon fee ñoom jël nañ oto ba dem parce que dañoo sonn waaw dañoo man mii man damay dem hôpital nii dama doon dem nii taxi laa jël dem nii kii ne ma gars yi ñëw man ko nar mooy ferraille yi ñoo ko mooy biteel yi tëdd ñoom la. waaw ñoom place seen patron moo fi yor place seen patron mooy son na lool gën na. mel ni butéel yi butéel yi ñuy utiliser. butéelu hôpital yi la. butéelu hôpital la butéelu gaz la. dafa dafa genre ammoniac ponk moom laaw da ñun daal son nañ lool lool lool lool fi ne secteur bi ñëpp a ngay moom ku ci am as moom bu la yàlla dimbali boo amul sans dara moom du jógaat dëgg yàlla sonn na lool moom pour ñu mën waxtu la am depuis ay boor yi cinq heures gars yi kenn àggul fii kenn julli cinq heures tey ah ñëpp a kàbbar ñëpp a ko degaat